salaamaaleykum daleen ak jàmm si Xarala Academy mbokk yi seen Xarala Academy duñ topp suñu formation Django REST Framework tey suñu vidéo dañu la bëgg war naka nga la ñuy sérialiser données yi par exemple naka la ñuy jëlee données yi def ko ci benn format boo xamante ni dañ koy mën a exploiter voilà léegi loolu pour ñu def ko bu étape bu njëkk bi moom mooy lan dañuy njëkk a dem ci settings Les bu settings ñu ajoute ajouter Django REST framework Fini, comme ni ngeen gisee voilà damay copier Sur surtout il faut le temps de lire documentation ok Les ajouter na Django REST framework Fini. Voilà, la première étape bi xaaral ma lire voilà bon ce mooy permission par exemple ndax utilisateur bi dafa soxla avec Django REST framework wala le ko deuxième étape bi mooy sérialiser bi gis nga mooy ñu ñu définir suñu représentation API maanaam suñu modèle de données ok léegi pour ñu def loolu dañuy ñëw fii man damay créer fi benn fichier pour séparer affaire yi tuddee ko Py. ok léegi fii comme comme ni mu ko defee nii gis nga from less frame boobu import serializer man serializer lay installé soxlaa ma routers bi. from um, rest mm, rest uh, rest okay from work import serializers ok bon je pense que dafa jaawale ci environnement yi peut-être loolu moo tax xama essayé xool sama environnement fii euh, bon indiwul ben environnement bu ma mën a utiliser mais garaaw li du erreur donc dañuy créer fii benn classe bu ñu tuddee contact serializer toujours nag je conseille ngeen jël le modèle bi daal koy def fii nii voilà léegi ñu importer ko fii nii from point models import contact voilà les contacts pour la passé fii nii qui euh, kii la si héritage amul dara lu spécial wala pour Django donc fii la ñuy def euh, serializer bi daal di beneen euh, classe foofu ñu tuddee ko modèle serializer serializer serializer ok léegi fii dañ koy dañuy def beneen classe meta classe meta aussi je pense def naa si benn article bu gudd mën ngeen ko liir foofu parce que c'est amuñu temps pour di expliquer lépp léegi premièrement da ngay def modèle non modèle bi maanaam xamal leen modèle bi. nombre bi moo nekk nii comme ni ngeen ko gisee deuxième étape bi mooy ñu mettre les champs yan yan champs lañ bëgg sérialiser voilà bon mën nañ ko wax lu gën a lu gën a simple ni que jox ma champs yëpp voilà mais yenn saa yi y a des moments yoo xamante ni doo soxla champ yëpp par exemple ay first name ngay soxla ak last name voilà yenn saa yi ñaar yooyu rek ngay soxla mais ñun champ yëpp lañ soxla moo tax ñu ni ko léegi jox ñu tous les champs voilà comme ni ngeen ko gisee serialise nañu serialiser nañu suñu modèle de données manam préparé nañ ko ba pare waaye mënuñ yem foofu comme fi ni ngeen view set define the view behavior manam il définit le comportement d'une view donc léegi dañuy dem ñu daan def comportement bi manam defar suñu view comme amon nañ fi ben views ba paré mooy view normal bokk ak view API bi damay créer fi ben dossier wala ben fichier bu tudd API juste pour ngeen bañ ok comme nous on ko gisee fii view set bi D'abord, abord da ngay importer serializer bi ok donc mën va wax from date serializer import contact serializer contact ak contact serializer contact mën nañ ko mën nañ ko importer modèle bi voilà from dot models import contact ok donc li yi li nga xamante ni moom nga war a njëkk importer voilà léegi boo importer li pare da ngay importer view set voilà day xamal leen mën ngeen liir lu bëri ci view set voilà dinaa leen defal euh, lien yëpp ci suuf ok léegi damay importer view set bon xam nga def ko si kaw from euh, rest hmm, rest euh, framework import view sets c'est bon ok donc import view set day une classe nous def une classe view contact view set léegi day jël euh, view set point model view set simple vraiment Je ok léegi fii tamit da ngay dugal ñaari attribut bu njëkk bi moom mooy serializer class mooy class bii nii fii da nga ko war a woo fii beneen bi stop moom mooy modèle bi wala query set bi donc ok léegi dañuy def euh, serializer donc class comme amoo amoo auto completion tey <laughs> je suis obligé ma bind yenn affaire yi ok donc ñu def query query set égal contact point objects point all les contacts yëpp lañ soxla moo tax ok léegi deuxième étape mo nek ni gis ngeen fini voilà troisième étape mo ni routers provide an easy way of automatically determine the URL conf mo ni routers def ñuy jox benn possibilité bu yomb pour ñu mën a xam Euh, les URL facilement kon tamit loolu day wan ni router dafa ñëw pour yombal lu mbiri voilà léegi router fan lañ koy def mën nañ ko def fii si URL si voilà comme URL si yu njëkk yi ñoo nekk nii dañuy ñëw si kaw ñu importer kii yi ba pare voilà dañuy importer view view ba pare from that API import contact view set moo nekk nii suuf ok léegi bu ñu view viewset pare dañuy déclarer benn router moo nekk nii comme ni nga gisee fii nii attends je vous je montre moo nekk nii router égal router ok bon noonu la ñuy def égal router mais dañ ne ma undefined parce que de définir ma router si bii nii donc kon foog ñu importer ko pour mën ko utiliser ok donc kon dañuy importer default router donc je lañ importer ok from rest hmm, work, import default import ah, ok from default ok import default router ok donc import nañ ko kon day ñëw fi def default router ok donc la stop mooy bii nii par exemple router point register donc ñu def noonu ñu ni router point register comme ni ko gisee nii donc ñu daat koy jox euh, benn régleur expression ni ko bépp mot boo xam ne dafa commencé ak contact donc on va ici contact view set donc nous copier daa koy coller fii bon va copier qui Ah, ok voilà les dama koy jox un name euh, base name mhm. égal contact ok d'accord les la moos des par exemple enregistré le router bi mais utilisateur faut mu am xam lay dem pour mën le visiter site bi donc dañuy def ni ci kaw nga path bon ma def virgule on mu ko signaler <laughs> D'accord. accord léegi première path dañ koy des API ñu def include include bon include importé wu ma ko foog ma importé ko fii ok include router point .us ñu enregistré xool ba xam bu amee erreur ñu gérer bu amul erreur ñu testons suñu application léegi am suñu terminal object has acteur bi register ok ñu xool ba xam ah, ok round la def <laughs> te ñun soxla ñu round router lañ bëggoon def ok moo ok bon c'est normal hein. il faut apprendre à débugger aussi ah ok donc euh, ñun fi lañu war API slash contact donc ñu dem foofu bon par exemple boo API kese allez indil fii par exemple API slash contact nga bës contact voilà indil ma contact <laughs> donc def ngeen API si lu jëlul benn temps mu nekk mbir xam lu yomb la mën ngeen ñëw fii ngeen ngeen daal créer fii nii ñun dañ tester ci yenn outils yoo dañuy permettre ñu mën a tester API voilà outil yooyu dem leen si introduire ñaar wala ma bàyyi ko ba vidéo bii di ñëw donc comprendre nañuy créer suñu API si vidéo bii ñëw dañ koy tester ak yeneen outil merci